salaire salaire bi dafa néew bah situa tu as de vingt cinq mille ki nga xam ne dégg nga les femmes elles sont trois ou quatre benn bi salaire boobu de vingt cinq mille boobu doucement waaw mhm. boo deewee yàlla dañ koy diviser en deux benn bi loolu nag lañu xamul pour lan ah, ba ñu juddoo nag dañ ko fi ah. fekk ba ñuy liggéey fekk ko fi bi suñu jëkkër dee ñu fekk ko fi. divisé en deux en bi. benn bi pension bi benn bi kenn xam na lu ñu koy def benn bi lañ lay jox yow. veuve mais su fekkee da nga am ay co-épouse deux ba trois tam dañ leen koy partagé. benn bi waaw léegi beneen moitié salaire bi kenn xamu ko. IPRES da koy confisqué. moitié salaire lañ lay jox si vous êtes trois vous partagez si vous êtes quatre vous partagez si vous êtes une seule nag nga jël. noon la demee. te ba ñu dalee yokk ba tey tam weer bu ne li ñu yokk matul 1000 francs